غريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين وسيم jaale fii ci jërëjëf maa ngi ñëwoon euh, jaale si euh, am nag euh, naxar bu metti ci bi ma ñëwee gis li xew ci kër gi ma dajeek borom kër gi dajeek frère soxnaam ma présenté leen sama njaal au nom de notre coalition la coalition Jàmmi Réew mi mais présenté leen d'abord sama condoléance en tant que doomu aadama en tant que jullit bu bokk ak ñoom naqar bi euh, waxtaan ak ñoom defal leen delloo si leen waaye wax leen ni tamit ne leen ginnaaw bu ñu amee yaakaar ci ñi fi bàyyikoo ndax ñoom ni ñu fi bàyyikoo yàlla tàbbal na leen directement ci aljana yaa ayatuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fa fadduxuli fi ibadi wadduxuli jannati yal na yàlla boole leen ca ñooñu bi jaayi nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ak ci barke weer bu tedd wi ñu ne waaye waxaale naa leen ne leen ñun ñëpp tiit nañu ndax li xew fii ñu am une mauvaise prise en charge des grands brûlés te mu waroon nekk la responsabilité morale bi président de la République waroon engagé ci wàllu yërmande mais lii li mu wane encore mooy ñi ñu jiite amuñu yërmande ci ñun askan bi seen yoon nekku si parce que ñoom suñu amee yu mel nii xam nañu yan bunt la ñuy fëggi en Europe wala aux États-Unis pour toppatoo seen bopp lu mel ni su xewee ca ñoom su leen neexee léegi jël benn avion def évacuation sanitaire fay ay dizaine de millions dem du leen déranger mais ñun ñi nga xamante ne ñooy néew di doole situation yu mel nii su xewee ci ñun ñoom ñu waroon ko jël en amont organiser ba centre pour la prise en charge des grands brûlés am taxawaay bu mat sëkk ci réew mi malheureusement loolu amul beneen bi ci topp mooy enquête bi dañ ko war a pousser davantage xool ba xam ñi nga xamante ne ñooy defar bouteille yu gaz yi defar bi dafa mel ni respecté wul les normes internationales dañuy waxante dëgg te yàlla tax ndax suñ ko respecté woon gaz dootul exploser ci kër yi ak li muy jur ci ay dégâts nga am njaboot dëgg la ay gëm dañu gëm sunu borom waaye tey jii dama seet bër ci démb benn vidéo bu am ca Los Angeles ma xool ne waa ji dafa dox ba ba yaram bi tàng ndax ci tàngoor la woon mu am fu mu toog woo sapeur pompier yi ne leen dama sonn ñëw leen dimbali ma ñu indi oto indi sandwich indi ay serviette defal ko ba waa ji dellu siwaat te feebarul dara jotu ko ba mu dellu siwaat ñu taal oto bi dem mais fii xool leen tey suñu wooyee sapeur pompier daañu tànqal ak ay klaxon yu dul jeex mais suñu yegsee ci bërëbu ya ñuy def yenn saay sax ñoom amuñu capacité régler les situations du ci ñoom nag la responsabilité revient ñi ñu dénk suñu ay baat muy le gouvernement sénégalais tey jii gis nañu premier ministre bi lan la tal mooy jéem a xool naka lay renforcer sa chaîne de massification et de crédibilité dans le pays mais tey jii waroon na fekk bi ngeen may taalal micro nga ne premier ministre ñetti fan yëpp chaque jour ñëw na ani le ministre de l'intérieur ani le ministre de la santé ani le président de la république et pour pourtant bi doomam Amadou Sall di def graduation am ca bitim réew taal na avion privé bi lakk kérosène boo xamante ne tey jii mënoon na sauver cette famille mais dem na parce que taxaw na ci wetu doomam mais ñun ñi nga xamante ne moom la ñu wax c'est le père de la nation tey jii gàcce la ci ñun dëkk bu toll ne Sénégal ak li mu am ci histoire ñoo am ay leaders yoo xamante ne ils ont abandonné leur population abandonné seen rôle principal mu doom servir la nation yooyu nag ma yaakaar ne li ko war a faj mooy sénégalais yi daal di yeew xam ne jot na xaalis bi ñuy dajale te muy dem trésor public douane yi ñuy fay ñu fexe ba à partir de mille vingt quatre nit ñi su ñëwatee toog ci bopp réew mi seen yëf yëpp nan lay doon mooy servir population yi loolu laa amoon ci lu may sànni ci kàddu di leen santaat aussi parce que boobu ba léegi yéen a ngi ci liggéey bi di defalaale famille bi en dehors de li ngeen nekk ay homme de média di taxaw nit ñi lépp loo xamante ni ñu soxla woon nañ ko ci ay pommades. gàcce la encore parce que pommades yi ñu ne yéen yéen a mbir mi pour ay nit ñu nekk bi bitim réew mën a dugal fii pommades yi gàcce la ñu ne Sénégal amul pommade boobu di jël en charge les grands brûlés donc maa ngi santaat ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla yàlla na fi géej ci réew mi. ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla defal leen ndax moom rek moo ko mën gis naa le père de famille mi ngi nekk dans une profonde tristesse te su nit ñi demee lay gën a sentir tristesse boobu taxaliko ak sa soxna ci condition yi ak say doom ci condition yi ak say beau-frère ci condition yi sa jànq ci condition yi ku wax ne mettiwul daf laa dalul moo tax ñaanal naa ko ma yàlla yàlla may la xoolu muñ yal na yàlla nekk sa wéttal ndax su yàlla nekkul wéttalam jafe-jafe yu metti dana tar ci moom maa ngi sant di gërëm jërë ngeen jëf